mbokk yi ñu topp si xibaar 24 euh, TV xibaar 24 point com suñu chaîne YouTube également xibaar 24 TV ba si Facebook bi suñu page xibaar 24 tey ji am na nu mbégte dellu si si plateau bu am solo di waxtaan si wàllub euh, sujet société lu si mel ni alam gi maanaam wàllub environnement ba ma waral ñi ngi nag euh, seq waxtaan bi ak ay kàngam tënku nag si kuréel gii di daayira bu am solo Touba ville verte Nourou Daara yi nekk si Touba ñu fa yéene waxtaan ak ñoom. si maanaam situation Touba si wàllu environnement. ñu wax également kuréel gi kañ lañ ko sos li ko tax a jóg ak tamit euh, lan mooy seen bilan bi ñu accès bi ñu ko sosee boobu ba léegi. Euh, ba ma waral dañuy tàmbalee rek euh, jox kàddu gi. ñenn si ñoom wala boog sax tàmbalee si Serigne Moustapha Amar mu dëkkal ñu si historique kuréel gii di Touba ville verte Nourou nii sëñ Moustapha. asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. ñu ngi leen di nuyu sëñ Babacar rafetlu introduction bi ak question bi. Touba ville verte Nourou Darayni daayira bi ñu ngi ko sosoon en 2012 ci ndigali ki fi nekkoon loon Serigne Touba di Serigne Sidi Mokhtar yàlla na yàlla yokk ay leeram te tasu ci barkeem ginnaaw bi yàlla defee Serigne Mountakha mu baax mi nekk fi di xalifa général ku lu murit del nañ ci moom mu yeesal ndigal loolu. suñu yëngatu nag jëm ci environnement ak éducation. jërëjëf suñu Moustapha si introduction bu am solo boobu noonu euh, daayira boo xamante ni day yëngu exclusivement si wàllu environnement mel na ni lu raar la si biir Touba ñu ngi koy soogay gis Serigne Ndiaye mi ngi suñu wet euh, Serigne Ndiaye bu ne environnement yaatu na si yan domaine ngeen di yëngu réellement. waaw maa ngi <coughs> ziare ñëpp di ziare ñi fi ñi ma nekkal ci bokkal plateau bi. mbokk taalibe yi nga xam ne ñoom laa ko bokkal. Euh, kuréel gi nag moom euh, maanaam euh, li ko fi mu commencé mooy ci arrosé tàndarma yee ci jumaa ja boobu lañ jotoon ndigalu ci sëriñ bi di ko arrosé dem ba ci yàgg nag sunu xel nekk ci yaatal ko ci biir dëkk bi yëpp. ci lañ commencé di implanter ay garab ci ya di implanter ay garab partout ci dëkk bi rawatina tam deux voies yi nga xam ni. moo jëm Mbàkke Touba waaw ak fu am solo daal ci dëkk bi yoo xam ni def nañ fa ay garab kooku daal xam naa buñ duggee ba ci biir waxtaan wi den ko mën a développer bu baax a baax incha allah. mais juste laaj bi ñuy laaj mooy bu ne environnement xam nga dafa yaatu yamul rek euh, si wàllu garab ndax yéen garab dong ngeen choisir pour liggéey ci wala am na yeneen euh, mbir yu ngeen yëngu si wàllu environnement. waaw euh, xam naa question bi am na ñu ma sama gars yi toog dina ma ci gën a mën a jàppale ndax. ku nekk am na ci loo xam ni domaine bi nga bi nga yore man pour problème man maa yore wàllu finance bi xam naa bu duggee ci loolu ci laay gën a mën a dem mais incha allah boo boo wëree rek gars yi dinañ la mën a répondre correctement. voilà mbokk yi leen di fàttali ñu ngi ànd ak waa Touba ville verte rey nii di kuréel ki nga xamante ni daayira la mais dañuy yëngu si wàllu environnement maanaam alam gi li nu wër pour askan wi seen nekkin gën a yemb sëñ Moustapha Diop mi ngi toog. Euh, sëñ Moustapha Touba gis nañu ni mooy deuxième agglomération du pays ñu gis ni garab dafee xaw a na sax barewu fi daanaka si yéen bi ngeen defee seen saytu bi ngeen taxawalee seen euh, kuréel gi na ngeen gisee état wu maanaam environnement si dëkk bu tedd bi di tuba surtout si wàllu garab garab maanaam nu mu fi bindoo ak nu mu fi nu mu fi demee daal. waaw jërëjëf sëñ Babacar ñoo ngi lay nuyu di nuyu sama nattaango yi ma bokkal plateau bi. di wax na sa question bi am na solo lool xam nga sëñ Moustapha wax na ko sànq fi ñu fi ñu dooree Serigne Ndiaye dikk si mais ñun dañoo départ si benn constat wax nga ko sànq sa biir question ndax euh, Touba gis nañ ni mel garab tumuranke na fii condition climatique yi xaw na des loolu bokk na si li nga xam ne mooy si taxaw seetlu bi d'abord ñu xool duñ ne sax dañ koy mën a saafara waaye nu ñu si bokkee ba tàngoor wi wàññeeku loolu moo tax daal euh, ñu ne kon nañ yëngu si wàllu environnement. sëñ Ndiaye wax na ko mooy ñu commencé si jumaa ji waaye tamit lawal ko si biir dëkk bi ndax ni nga ko waxee sànq fa am solo lool si si dunduk doomu adama ndax mënuñoo dund sans garab garab mënul dund sans ñun loolu moom ñu ñëpp xam nañ ko moo tax daal ñu mal garab yi yaatal ko si biir dëkk bi def tamit lu mel ne espace vert mbébét yi romb na foofu waaye xëy na si biir waxtaan suñu développé xëy na dañ sex bu baax baax maa ngi jéglu euh, toujours dellu siwaat si laaj bi euh, maanaam mooy bi ngeen saytoo si Touba garab nu mu fi demee ak yan xeetu espèce ngeen fi gis d'abord. waaw jërëjëf ñun li ñu fi seetlu woon bi ñuy bi ñuy door xam naa ñëpp sax mooy seetlu bi ñëpp bokk mooy garabu nixmaa daal moo fi ëpp. ñu ne comme nixmaa bari na fi nag suñuy door ñun nañ jéem a xool nu ñuy varier indi fi yeneen euh, façon yi garab yoo xam ne dana mën a dana mën a yàgg dëppoo dëkk bi dëpp mm, ak euh, ni dëkk bi mel. tàbb si biir liggéeyu sëñ bi nga xam dañ ko mën a taaral moomu tax ñu ne daal nañ nañ nañ nañ indi yeneen yoo xam du bokk ak garab yi ñu fekk daal. sëñ Moutala euh, mi ngi si euh, jotaay bi moom it bokk si kuréel gi euh, sëñ Moutala en fait constat bi également mooy Moustapha Diop mu ngi koy wax léegi nii benn xeetu garab moo fi gën a bare muy garabu niima. est-ce que am na jeexintal si nekkinu bien-être population bi ak yan xeetu garab. ngeen doon recommander ngir ñu mën ko indi si biir Touba. jërëjëf euh, sëñ Babacar maa ngi leen nuyu lu bari di nuyu mboolem ñu taw ci jataay bi di sof suñu nuyoo rek ci nuyoo ñu sell la ñu fi jaar di siyaar bu baax tamit xibaar 24 ñi nga xam ni euh, ñoo def jotaay am solo bi ci environnement rawatina ci dëkk bu sell bi di Touba. Euh, bu ñu bëggee dellu si sa rek bi ñu ñëwee ni ko sëñ Moussa waxee ñu ngi fi fekk li ci ëpp ci garab yi ay niix ma muy garab garab nag goo xam ne gu am solo la. Euh, goo xam ni jafewul toppatoo waaye gu am solo te bari ay ferñeent yoo xamante nii dana mën a dellusiwaat ci nit ñi euh, waaye ngir méngale dëkk bi ak fi jamono toll tey tax na bokk na ci gis-gisu Touba Ville Verte Nourou Darayni ndaxte cosaan la tàndarma yi jumaa ji moom lañ doon saytu euh, waaye gannaaw bi lañ la ñuy wax sëriñ bi ni ko sàkku ci moom ci moom ndigal ngir gën naatal dëkk bi ci wàllu garab yi nga xam nag indi nañ ko fi bari naa ay xeeti garab xam naa dinañ ci ñëw. Euh, ndax arbre fruitier yi garab yi nga xam ne ay meññeent la yu mën a jëfandikoo doon nañ ci jéem a essayer mais jafe-jafe bi nga xam ni euh, moom lañ ci am ba tax na duñ ko mën a euh, wéy mën nañu woon wéyal mooy garab yooyu boo leen defee fenn da nga daal di wut lu ko protéger bu dul loolu jur gi jëfandikoo ko te ku ne xam na ne loolu tamit budget bu kawe laaj laaj yiñ ci def yëpp suñu propre moyen lañ doon taqalee de ci góor-góor di ko def. boo amee lu mat deux cent garab jëmbat ko euh, di def ay pexe ngir ngir ngir euh, protéger ko loolu bu fekkee amoo moyen boobu da ngay am jafe-jafe moo tax ñu mujjoon euh, trouver garab gu ñuy wax laurier laurier bi ñu ko trouver dañoo gis ni garab la goo xam ni genn jur du ko jëfandikoo te it rafet na te li taxoon ñu tànn ko mooy rafet taar bi ci la bokk waaye itam genn jur du ko jëfandikoo kon ñu teggil. Euh, loolu ñu nga xam ne ñun moom lañu ñu waroon a wuti ngir lu ko protéger kon laurier bokk na ci waaye mboolem xeeti garab yi nga xam ne yu rafet la ay ñoom kordia mentalité yooyu yëpp ba ci mélina yooyu yëpp euh, bokk na ci variété yi nga xam ñun ënd nañ ko fi ba ci yaakaar naa bu ñu duggee ci réalisation yi wax fan ak fan lañ def ay lañ def garab ak yenn xeeti garab lañ fa def. voilà yaa ngi tudd léegi laurier euh, mel na ni kon xëy na seen koom moo barewul moo tax ngeen taamu garab ki nga xamante ni jur gi du ko laal ak yooyu mais est-ce que suufu Touba méngoog na ak yeneen xeetu garab yu ëpp du ma sax wax ni ëpp doyo parce que garab yëpp baax nañu waaye tey boo tuddee Touba da ngay tudd dëkk mu mel ni màkkata parce que moo doon sababu euh, Serigne Touba mi ko euh, sanc euh, maanaam pourquoi tamit du ngeen xalaat ci yenn xeetu garab yu noble yooyu ñuy faral di wax wala boog da ngeen ci amoon ku leen ci dimbali wala. jërëjëf sëñ Babacar mu mel ni dëkk bi comme loolu wax ci xeeti garab yi lu bari dëkk bi dafa barkeel barkeel macha allah lu bari ci xeeti garab yi. Euh, suuf Touba si nangu na ko ak malgré li ñuy wax lépp ci ndox meeg yëpp mais suuf si ñaare garab goo fi def te toppatoo ko tuuti rek mu dem euh, boo gisee nag ba tey jii mënuguñoo atteindre objectif bi ñu am muy fexe ba euh, li ëpp ci dëkk bi maanaam ay garab yoo xam ni garab yu meññante la waaye garab yoo xamante ni yu rafetal dëkk bi la ndax loolu bokk na ci projet sëriñ bi ci Matlaboul Fawzeyni kon ñoo xam loolu faaw war naa am moo tax ñu ne ci waaye boo gisee ba tey jii loolu mënaguñ ko mooy li ñu wax léegi manque de moyens yi nga xam ni dañu ko am ndax garab yooyu souvent dañuy cher te boo ko indee itam il faut nga protéger ba jur gi duñ ko jëfandikoo te fii agression yi jur gi la ak nit ñi ci boppam sax dañuy yàq ay garab ay gis oto bu arrêté ci garab bu paree moo xooñee li ko protéger woon ray garab gi bu noppee dem yoonam jafe-jafe yooyu ñu am nag moo tax ba tey ji mënuguñoo euh, wut xeeti garab yooyu mais bu yàlla dogaloon tey ji moyen am koom-koom bu ko matee am kon garab yi xeeti garab yi ngay gis ci biti yi gën a taaru yi gën a rafet yi meññent bi gën a am solo danañ ko def fii ndax dëkk bi wax nañ ni sax café sax am na ko fi essai mu dox ceeb am nañu ko fi essai mu dox boo xoolee ci dëkk kër yi da gis ay garab yi mango jaar da ngay gis garab yi tàndarma yi limon da nga ko fi gis même orange da ko fi gis sapooti xeeti meññeent yëpp daanaka bu ci ne euh, boo ko xoolee ci dëkk bi di ko fi gis kon day mel ni manque de moyen moo tax mënaguñoo euh, euh, def loolu waaye suñu objectif moom loolu la ay garab yoo xam ni ay meññent la ñu mën di ko jëfandikoo mu wàññi xiif bi ak ay garab yoo xam ni ci yi gën a taaru lay doon ñu mën ko def ci dëkk bi ngir euh, yokk taaru dëkk bi. wala mbokk internautes yi di leen di fàttali ñu ngi ànd ak waa Touba euh, ville verte waa daayira Nuuru Daarayni di yëngu si wàllu environnement. Euh, sëñ Moutala yaa ngi ñëw léegi si affaire manque de moyens mais dama naan man manque de volonté aussi am na si volonté politique ndax bu ne commune de Touba am na. institution bi fi am muy la commune te am nu commission bu ñu jagleel environnement euh, kon sëñ Khadim Diop xanaa da nga jàpp ni en fait euh, jamono jii da leen bàyyi à seul ngeen di liggéey sans pour autant ngeen am ndimbal ndax yéen am ngeen volonté bi mais est-ce que les politiques ñoom ñu ngi siy jàpp réellement si gox bu benn Touba dëkk bu benn Touba ak doywaay bi mu am si biir réew mi bu nee environnement da ngay wàññi garab yi. voilà euh, ni nga ko waxee vraiment dëgg-dëgg comme ni ko professeur di faral di waxee. Euh, l'environnement est une question transversale parce que euh, lépp lu commencé wul ci environnement rek euh, ci lay terminé donc waroon na am bàyyi xel goo xamante nii gu ëpp solo lay doon ci d'abord ci citoyen mais aussi autorité politique wala autorité administrative yi nga xam ne ñoom ñooy suñu kilifa ñoom en principe la war a ànd ak àndal liggéey bi ndax lu ci bari bari ci ñoom ci li ñuy def ñoom la waroon mais malheureusement dëgg-dëgg yëguñu seen jàppale ci ci loolu parce que euh, question question environnement en général du du nekkul question boo xam te ni euh, ça suscite beaucoup d'intérêt au niveau des généralement des politiques parce que tout simplement euh, ñu bare bari ci population bi amuñu éducation benn bi c'est une certaine éducation environnementale bu leen di permettre loolu Euh, ñu ci bàyyi xel di ko jox les intérêts qu'il faut euh, l'importance qu'il faut ba euh, autorités yi di ci mën a jaare ba man leen a disons pour satisfaire seen i yitte en général di ko di ko bàyyi xel nam ware mais ñun on comprend parce que du loolu du Sénégal rek la xew Euh, parce que boo demee ci àddina bi am na ay organisation environnementale yu mag yoo xam ne dañoo nekk ci réew yu développé mën naa jox rek euh, benn boo xam ne je ne veux pas du bëgguma tudd turam euh, mais bu mag a mag la boo xam ne day day ci day ci dox di ci yëngu te pourtant ci réew européen la koy def du trouver ay moyens ci ay ci politique de de financement yoo xam ne ay privé ñoo leen di jàpp na ne nag loolu mën naa nekk fii parce que xam na ne moom état ku leen xaar ci loolu wala autorité euh, locale ci loolu vraiment euh, doo dem su ki fekkee boobu ba léegi d'abord ñu ngi compter ci suñu bopp def ay cotisation régulière waaye ñu ngi am yaakaar yi ne euh, yàgg boobu dara bu ñu nekkee ci lii yàgg yàgg nit ñi dañ comprendre fekk suñu ci nu mu tëdd enjeu bi. mais mais généralement en fait sëñ Khadim Diop autorité bi bala muy gën a mën am volonté fekk si la si li nga nekk da ngeen am benn vision am benn projet. yéen seen projet environnemental aussi tamit est-ce que doon na lu convaincant. ah généralement environnement lépp convaincant parce que euh, lay doon euh, de l'environnement une préoccupation des populations par rapport à l'environnement euh, dépend disons la survie de notre espèce donc c'est une obligation ñu ñu am ay préoccupations am ay programmes ay visions am ay parce que bu ñu ko defut du ñu ex nous sommes obligés nous sommes disons. condamnés à disparaître te bëgguñu disparaître pour le moment donc loolu moo tax dëgg-dëgg xalaat nañ ci yooyu yu bare bari par exemple mën naa jox benn exemple euh, am nañ gis-gisu defar euh, une bande verte autour de la ville sainte de Touba parce que bande verte boobu déjà bu amee dana am ay effet indi yu am solo ci déjà tàngaay bi mais aussi euh, dana dana feeñ ci récemment rek gis nga ko poussière bari mu ngi jógee Algérie Mauritanie sonal ñu lool di euh, au niveau euh, problème santé euh, problème santé yu bari la posé yooyu nga xam ne day influer ci économie locale parce que nit ñi dañuy sont obligés ñu faju te ñoom ñoo jël seen bopp en charge donc loolu rek déjà lu am solo la ci ci ci ci dundu aadama ensuite am nañ pas-pasu yee nit ñi ci Euh, créer une économie locale qui tourne autour de, euh, de, de, des espaces, de, de l'espace vert en général, euh, des arbres. Parce que, dans certains pays, aujourd'hui, euh, c'est am na économie bu mag a mag a mag a mag fii ne juddu na ci ci wàllu garab ak li li xam ne da ci aju mën nañ am des des des forêts yoo xam ne ce sont des ñoo leen di créer autour de la ville forêt yooyu ñu leen di utiliser di leen exploité Euh, nit ñi di ci liggéey mu mën a créer bant ñu am bant disponible te am na garab yu yomb yomba euh, cultivé yoo xam ne rapidement en l' espace li nga mën donc vraiment am nañ ci à am nañ ci gis yu bare bare bare voilà sëñ Moustapha ñëw si yow ndax da ngeen jàpp ni environnement aussi yéen seen gisin mooy rek ngeen yem ci wàllu garab bi mais am na yeneen sujet yu gën a am solo aussi si biir environnement lu si mel ni gestion mbalit mi ak euh, maanaam déchets plastiques yi ndax Touba boo xoolee démographie bi am na solo loolu te nit ñi tamit ku si nekk mi ngi utiliser euh, des produits su paree da koy sànni te produits yooyu dafay mujjee suuf si te da indi ay gàllankoor ndax yéen a ngi bàyyi xel aussi tamit également yeneen aspects environnementaux yi. waaw jërëjëf sëñ Babacar. Euh, ñi ngi koy bàyyi xel bu baax. boo xoolee environnement daanaka mun naa ne politique état mi ngi ko gën a jëmale sax moom ci côté boobu ngay wax noonu ci côté recyclage mbalit bi ak fan lay mujj. ba keroog ñu koy mën a transformer mu doon loo xam ne dafay dellusiwaat ci société bi amalaat ko njariñ donc côté bi gën a négligent actuellement mooy côté reboisement boo xoolee bi ci biir Sénégal moom euh, na ma yàlla jégal ñoom détruire garab moo leen gën a yomb defar garab parce que communication bi ak sensibilisation bi peut-être des na mais nit ñi xamaguñ sax lan mooy importance su garab donc ci côté boobu boo ma mayee. mun naa la ci jox sax ay quelques exemple parce que kuréel gi nga gis nii muy daayira Nooru Daare ni Touba Ville Verte dafa nekk benn kuréel boo xam ne amul bailleur de fonds nekkul ci ginnaaw kenn daayira bu yaakaar Serigne Touba la associé seen moyen ak seen énergie pour mën a liggéeyal Serigne Touba ci wàllu environnement donc nga xam garab buñ mës a jëmbat dañoo cotiser daanaka jënd ko ba ci deux voies yi nga xam ne mu ngi tàmbalee ci rond point garage Dakar dem ca rond ba ca total bi séparé Mbacke ak Touba mais boo xoolee temps yaa ngi fa gis ay travaux yoo xam ne ñu ngi fa ñu ngi ko fay def mu mel ne genre pavage wala quelque chose comme sa donc ci xam-xam ak ci code du marché euh, bu fekkee entreprise dafa gagné marché war a liggéey loo xam ne fa mu nekk fa mu koy liggéey dafa amoon ay garab li ko yoon may mooy bu fekkee ne garab yooyu dafa war a deñ wala dafa war a déplacé wu. dafay bokk ci ay réglementation même bu koy déplacé bu paree da ko war a reboiser waat tey boo xoolee foofu ni ngi fa defoon à hauteur de 300 arbres arbres yi 300 arbres yi boo ko doon xayma ci xaalis kese kese kese ñu ngi doon côté en moyenne 600 mille francs te ñu jox ko énergie bu bare bare bari te guddi lay doon te ñi koy def mooy ay kilifa yoo xam ne dañuy bàyyi seen liggéey bàyyi seen njaboot bàyyi seen soxna nekk fa de minuit à 2 heures de matin ut ay oto def ci carburant du ay ndox. pour perfuser garab yi pour garab yi mën na dund dégg nga te garab bu ci nekk utal nañ ko protection boo xam ne lu mu néew néew néew coûté woon na 7000 francs utoon ay engrais biogerme yoo xam ne moo koy sauver pour mu mucc ci agression yi ñi nga xam ne liggéey boobu liggéeyu presque deux ans la yoo xam ne chaque semaine da ngay ñëw deux fois def carburant def ndox def tout tey ñooñu bi ñu ñëwee di liggéey loolu à notre grande surprise amuñu benn xalaat bu dul jël garab yooyu buddi ko sànni wala sotti ci lu koy rey. bàyyiwuñ xel ne lii nii bakkan la yor comme ñoom ñooy liggéey nañu yoree bakkan. nga xam Serigne tubaa mu tedd mii sax ku fonkoon garab la ba ci suñuy nopp këram gi ci mooy fii Serigne saal yu nekk nekk nekkoon am na benn ouvrier bu fu mos a ñëw di am lu muy liggéey waaye pont ba am daajoon ca garab ga rek pour wékk ci mbubam sëñ bi fa mu toog la toog yëg ko ba tere ko loolee. kon ñun ñuy taalibe Serigne Touba yaakaar Serigne Touba. garab nga xam dafa nekk ci euh, liggéeyal yàlla yi nga xam ne dalay topp àdduna ak alaxira mu bënn teen a yem ba tabaxub jàkka ndax yow da ngay dem bàyyi ko fi euh, njëriñam di continuer ak deux voies yi nga xam ne garab dafa baax ndax dafay may auto yi visibilité pour ñu gën a mën a mucc ci euh, accident ak genre yu demee noonu ak ku xool Touba tàngoor bi di mu méttee nga xam garab dafay absorber gaz carbonique bi nga xam ne moom la ñuy noyyi di ñu dolli oxygène di di wàññi tàngoor bi di indi humidité donc ay nit ñu bu dee ay professionnel lañ nan lañ mën a xoolee liggéey bu rafet bu mel noonu nga xam léew li ngay liggéey jotewut ak loolu dara danga war a ñëw ba tolloog moom kireel garab gi kër continuer sa pavage dem bi continuer puisque ñoom décor lañ doon def mais teniroon compte ci loolu bay jël garab di ko sànni donc loolu nag bu fekkee moo général ci dëkk bi tàngoor bi dana gën a yokk te boo seetloo Sénégal culture reboisement bëri ko donc il est que ñu gën a sensibiliser waat nit mais il est que aussi état bi revient sur terre xam ne reboisement dafa bokk ci politique d'environnement du jënd ay oto mbalit rek wala recycler mbalit rek wala tuuri mbalit kese ndax alam bi dafa yaatu daal. préjudice yooyu noonu ñu ne indi leen tekk seen kaw euh, tey jii da ngeen tenté action wala dangeen bàyyi rek mu sedd noonu parce que ku romb di nga xam ni vraiment li yàq la est-ce que nekkul tamit seen wàll yéen en fait euh, suivi bi dafa desoon. wala boog nu ñëw gis foofu noonu mu doon lu xaw a doy waar ñu jàpp ni fii dara amu fi ñu yàq sa lay mën a wax parce que loolu yàq la kon yéen est-ce que am nañ ci une responsabilité voilà. bon suivi bi desul woon ni ko doon suivre quotidiennement parce que moo tax ñu mën a def constat bi mais dafa nekk euh, loo xam ne euh, guddi àjjuma lañ koy suivre nga xam ne dañuy ñëw fekk yàq-yàqu bi am ba pare donc euh, mu doon loo xam ne bu dul dara même bu la ko diggalee yow en tant que nit waroo ko accepter ndax kenn du fekk luy dund nga di ko rey muy en première. ñun nag nous allons pas laisser tomber parce que ñëw def sacrifice yu mel noonu amul benn bailleur de fonds bu ma sa nekk suñu du ñu jox dara du politicien du état du benn autorité ñu ni neen ñuy cotiser li ñu am di jëmbat ci suuf Serigne tubaa bi pour liggéey Serigne Touba ci wàllu environnement amul kenn derrière nu wala devant nous ku dul Serigne Touba kenn mësuñoo jox ñaar dërëm ku dul Touba si suñu wërsëg lañ koy liggéey ak suñu énergie donc ñu ñëw yàqal na lu toll noonu te ñi ñu ko yàqal vraiment bu ñu doon ay professionnel euh, dinañ am éthique ak déontologie bu toll ne xam na luy dund dañ koy seet nu mu def ba topp topp mu gën a dund wala au moins ñu jéem a sax poser ay questions ñi dëkk ci côté boobu ne leen ñan ñoo fi jëmbat lii. su dee loolu waratu fa nekk ñun buñ ñu ko waxee en moins ñu mën koo déplacer foofu yóbbu ko ci beneen côté ba na serait-ce que garab bi continuer survivre mais on va pas laisser tomber parce que dëkk bi am na yoon. te lu mu leen jaral ñun danañ jaral lu ñu toll. voilà pour revenir euh, sur cette question mooy yàqu yàqu yi am si àll yi jëm Mbàkke ñu gis ni en fait euh, entreprise bi dafa jël ay suuf maanaam jal ko ci kaw garab yi Serigne Ndiaye euh, yéen moom nu ngeen gis si acte bu ni mel ginnaaw Serigne Safa Amar bi mu ñëwee si yàqu-yàqu yi ni mu toll. waaw sëñ sëñ Babacar euh, acte boobu acte boo xam ni ñun ñëpp ko ñaawlu euh, depuis bi mu amee ba léegi. ñun ñii ñëpp daf ñu ko naqarlu parce que di liggéey di liggéey di liggéey ba euh, garab yi toll foo xam ni macha allah di commencé pousser di génn te rafet di naatal ñu ñëw rek it yàqal ñu ko noonu kooku fi ñu toll sax mënuñu la ko wax ndaxte euh, xam naa ni pour nga méngale kook euh, nit ku génn àdduna sax dina xaw a kii mais foofu la ñu toll waaw tax ñu jël engagement lu mu ñu jaral rek. luñ góo lu mu ci euh, góobee rek gar ko ndaxte incha allah dinañ ci dem ba euh, liñ ci man lépp dinañ ko def waaw ba fekkee ni ñun ñoo nekkul woon ci yoon ñu xam ne ñoo nekkul woon ci yoon fekkee ni itam ka nga xam ne moo yàqal moo nekkul ci yoon li war ci yoon ñu teg ko ci kawam loolu daal mooy mooy mooy mooy suñu position pour le moment. mais ñu ne meeku ni dëkk bi aussi euh, dafa tegu si yoon parce que commune bi mooy yor yenn question yi ñoo gérer voirie bi. te loolu mi ngi amee si biir voirie bi si maanaam territoire communal bu Touba est-ce que tamit ñoom bu ñu soxla yéen du ngeen ñàkk euh, sëriñ euh, sëñ Moustapha ah, merci sëñ Babacar peut-être ba maa ñëw sa sa réponse sa question bi euh, sëriñ Xaadim dafa wax am solo sànq xëy na peut-être ñun ñoo ngi si ñoo ngi ñoo ngi siy jëm lu lu lu bëree bëri. parce que tamit soo yëngu si si dara lu mel ni environnement nga xam ne si une question centrale. Euh, li ngay fexe am mooy am l' adhésion populaire euh, te jàpp naa loolu ñu ngi si doon yëngu bu bëree bëri ba suñu wax na ko léegi garab ya fa nekk euh, suñ daan dem vendredi yu ne di ko di ko di ko arrosé am na ñoo xam tamit daan ñu fa wuutu mooy ñi nga xam ne dëkk nañoo garab yi daan nañu si taxaw taxaw bu baax ba soo gisee sax am na si garab yoo xam ne daanaka demoon nañ kon ñoom def na si tamit liggéey bu am solo waaw sa sa question bi am na solo ndax man de vidéo bi dama ko seetaan sànq. Euh, ñuy ñaawlu la fa am ndax euh, mën naa xam ne ñoom ils ont détruit des vies ndax euh, garab daf bakkan la bakkan la te kon jàpp naa ne lañ yàq war na naqari képp koo xam ne doomu adama nga ndax li ma ko waxee sànq relation bi ñu am ak garab ça doit être une relation humaine rapport de survie la kon war naa naqari képp koo xam ne doomu aadama nga Euh, rawatina nga am ce qu'on appelle une conscience vaste euh, waa mairie bi nag vidéo bi ma seetaan mm, ne nañ ma ñoom yëguñu ko ma si waxtaan ak seen xaalis man loolu dana ma jaaxal ndax travaux yi egsi na ba si ñoom comment se fait que kon ñuy bàyyi ñooñu di def loolu mais mais man du ma si du ma du ma bett ah. ndax euh, bi ñuy doog a door liggéey bi ñoom mm, dafa mel ne bi ñu demee si ñoom toog ak ñoom une fois foog naa dem nañ foo wala deux fois. toog ak la commission environnementale de de la mairie li ñu waxee ak ñun c'était juste pour ñu décourager waaw li ma déggee moom li ñu waxee ak ñun c'était juste pour ñu décourager voilà sax nañu li ngeen jéem nii ñoom jéem nañ ko mais sottiwul kon li ngeen def nii peut-être euh, ñu bari jaar nañ fi mais c'est une perte d'énergie mais ñun ñu wax leen nag c'est c'est possible de le faire te nañ ko waxee daanaka amee ne na ndax garab yi ku fee doon jaar ci deux voies yi nañ ne garab yi màggoon nañ il fallait que ñu accompagner rek jàpp garab yi dem dañ ko am ni ko bëggee kon ñoom li ñu waxee ne affaire bi yëguñu ko dana ma xaw a mais nag dëkk bi moo am benn particularité boo xam ne sooy dem tamit da nga dañoo war a xam ne ñuy demee maa ngi jéglu bu baax. une question bu demee noonu tey jii dëkk bi am kilifteef également ndax ku ñu Touba sa xel dem si xalif général est ce que sax yéen du ngeen dem ba yëgal ko loolu wala parce que yaakaar naa ni plainte moom ëpp na waaye kilifa dëkk bi am na ko. jërëjëf sëñ Babacar dëgg nañ kàddu yi am solo trop macha allah. boo gisee ñu tànt bëgg a tànt loolu defuñu ngir jug ngir dal ci kaw kenn waaye 2012 ba léegi ñuy liggéey bu ñuy laaj sunu bilan. li ñuy manqué manqué ay moyens ñuy dajale sunu ñaq sunu doole di ci góorgóorlu ba loolu bokk ci sunu sunu bilan. da ngay xam li ci jumaa ji Baqiyan ah, ak foofu daanaka suñu bilan foofu la gën a ëppee loolu garab yi ñu maye. 3 kilomètres yooyu ñu dindi ko. 3 foo xam 300 et quelques garab moo fa nekk ñu dindi ko ba mu def 37. loolu dafa metti dafa naqari si mu Moussa wax na ko léegi nee na sëñ bi mu toggee ci njaareem euh, te am miniser bu doon liggéey ba sonn daaj pont ci kii bi wekk ci mbubam ci sëñ bi ci biir la génn ci biir la génne taxaw. ana ko def lii na ko daal di dindi dafa mel ni sama yaram bi la ko la jàpp kon li Serigne jaay di wax ni euh, bakkan doomu aadama dafa foor waaye lii noonu lañu ñu kon sëñ bi boo demee bay wax ni dafa mel ni sama yaram bi ma ko jam kon ñun war nañ ko mën a méngaleeg loolu euh, li tax nag ñu ñu bëgg a def plante bi contre x ndax xamuñu ko mu ndax maire bi li ñu wax ñoom mooy xamuñu ko doon ndax dëkk bi ni mu tëddee ba nga xam ne yu bari day xew te kenn du xam ku ko def buñ defee plante bi ku mën a doon. koo xam ne moo def loolu xëy na moom bu gisee lii sax xëy na ñoom ñi nga xam ñoo def loolu bu ñu gisee lii parce que ba tey xamuñu ko moom bu ñu gisee lii xëy na peut-être danañu wax ñu waxtaan parce que tamit la ñu fa def comme mu baree bari la te ñi ko fi def duñ ay taxawaalu duñ ay fokkat ay taalibe Sëñ Tuubaa lañ buñ ko gisee parce que tamit euh, euh, li code bi wax maa ngi dégg euh, suñu soir wax code bi daf ko tere boo dindee garab da ngaa war def garab boo koy dindi ba nar ko wàcce nañu woo ñun ñu jël ko ñu jëmbat ko feneen coono yi ñu ci daj loolu war na loolu ñoom bu jaayee professionnel ni ko suñu saa waxee waroon nañu bàyyi xel waaye dëkk bi ni mu tëddee nag euh, dafa am loo xam ne léeg rek il faut nga dugal ci euh, jàmmaarloo waaye du dóorante du dara dafa am lu ñu yoon may buñ noppee nag mbooleem euh, ndax tënk nañ ko kilifa yëpp danañ fa dem gaaral leen li xew ak ni mu amee ba ñoom dara du leen ci ump ndax bari na kilifa yoo xam ne dañu ci yàgg di jàppale ci liggéey bi rawat na ko ci mel ni sëñ bi sama mu sëñ ak sëñ Maamu Buso imam raati bu Touba ñoom ñëpp lii dana dem danañ dem ba ba ba leer leen ko ba mu leer leen nañ waaye nañ ñi ko def bu fekkee ay sàmba booy lañ bu fekkee ay yàqkat lañ bu fekkee euh, entreprise bi rek moo ko def ñooñu nag dafa jaadu nag ñu jàmmaar la ndax bu ëllëgee keneen du jóg di nar xelam di daj lu mel ni di yàq ay garab bés bi nu jagleel garab si réew mi jëmmal nañ ko si Touba liñ ci gën a nemmeeku nag mooy kuréel gi di wuyoo si association Touba ville verte ñoo jóg nag ngir jëmbat ay garab tàmbale ko si rond point Touba jëm nag garage Dakar waane bu fekkente ni kilifay nguur gi ñi ngi tàmmu garab bi di beer kuréel gi nag ñoom ñu ngi tàmmu garab bi ñu duppee laurier tey ñu ngi complété ay laurier parce que fii dafa am euh, dañ fay commencé woon def ay cocotier boo xoolee diggante arrondissement ak garage bu Dakar fi ñuy wax bu Dakar ci rond point bi ay cocotier lañ fa jëkkoon def mais entretien wu cocotier yi dafa xawoon a jafe te jur gi tamit da ko doon da ko doon yàq ba noppi toppatoo bi xaw a diis lool bi ñu defee loolu gëstu ak techniciens yi laajte tamit xalaatu jeneen ci la ñu conseillé ñu ut garab gii ñuy wax lorier moom lañ doon def tey muy garab goo xam ni garab gu mën a dund la fii ci euh, fii ji deg zone bi ñu nekk bu ma garab gu résistant la ba noppi tamit garab gu ànd ak taar la ndax dafay génn ay xeetu fleur yoo xam ne day rafetal euh, fi nga xam ni moom mooy dëkk bi ba noppi tamit nekk garab goo xam ne jur gi duñ ko lekk looloo tax ñu tànn ko tey moom lañ doon def defoon nañ benn phase defaat deuxième phase ba nga xam ni àgg na ci rond-point bi mais tey dañoo choisir woon bis bi nag pour gën a renforcer diggante yi nga xam ne amuloon ay garab ñu def ay garab yenn yi garab yi nga xam ne tamit euh, dafa sonn wala mu dem ba loof wala ba mat a ñu changé ko def fa yeneen yoo xam ne yu gën a taxaw la yu gën a dëgër. ndax nag kuréel gii am na ñu koy jàppale. association Touba Ville Verte nu nuy def ba mën a matal seen ëmm si wàll wii yan gàllankoor la ñu am dellu si waat nañ si waaye nag jàpp ni mission bi ñu taxawal ndigal bu bàyyeekoo woon la si Serigne Sidi Mokhtar Mbacke. malheureusement bi ñu tàmbalee ba léegi malheureusement heureusement la ñuy wax sax parce que ñun bon bi ñuy ci liggéey bi tamit xaaruñu leen xaar ñun xaaruñu ci dañ ko def liggéey Sëñ Touba xaaruñ ci woon ku ci jàppale nag liggéey la boo xam ne tey jii ñun ñëpp la war muy ñun muy gouvernement muy ñi nga xam ne ñooy autorités locales yi daf leen a war même bu du dara wàllu bien-être environnement wu population bi loolu dafa bokk ci li nga xam ne seen rôle la. ci Touba rawatina ci Touba waaye nag ñun ba ñu tàmbalee ci 2012 ba léegi nii kuréel gi ak ni ñu toll li ñuy néew-néew yëpp loole mboolem lu ñu fi réaliser loo gis ñu réaliser ko. ci cotisation la jaar ci sunu biir diggante 1000 francs mille francs ba lu waay am lépp loo xam ne dañoo am liggéey boo xam ne wala projet bu ñu war a taxaw comme lii ñu def démb dañuy dañ koy xayma seet nu mu toll ñu séddoo ko ci sunu biir def ko loolu moo ñu may ñu agsi fii ñu agsi voilà enfin en fait euh, dañuy def rek suñu dernier tour table laaj suñu dernière question sëñ Khadim Diop Euh, si taxawaayu commune bi da si am solo parce que maa ngi ko doon wax léegi ñoom ñoo gérer la voirie yi bépp entreprise étrangère bu ñëw pour amal liggéey si ñoom ngay jaar ñu gindi la war na fi ngay taxaw tey ñoom bu ñu constaté ni am na daayira bu doon amal reboisement euh, taamu ale boobu noonu ñoom ñu bàyyi xel loolu xam ko tey ñu gis ni en fait am na entreprise étrangère bu ñëw def fa ay suufam yàqu ko est-ce que tamit commune bi du complice en quelque sorte la commune de Touba. Euh, xam nga vraiment loolu aussi tamit euh, vraiment c'est une question très sensible parce que ñun dëgg-dëgg euh, commune bi am na ci lu bari ci li muy doxee ni muy doxee loo xam ne ump nañu ump nañu aussi kuréelman it ump na ko ndax loolu lu ko waral mooy statut bi xam ne tubaa am na ko xam nga ne maire bi ni ñu koy fale loolu yooyu yëpp ak yi ci aju yëpp. expliqué nu lu bëree bëri bon mais de toutes les façons oui oui voilà justement mais de les façons man je ne pense pas aussi que euh, ñoom it ñu ngi def seen liggéey dëgg-dëgg dëgg très franchement parce que euh, même bu fekkoon ne théoriquement sax euh, lañ leen jox affaire yi rek ñoom war nañ seen seen seen seen seen maanaam seen dignité seen honneur war na leen may salaire yi ñu ciy gagné ñu même su bu fekkee ne du ne peut pas se donner à 100 pour cent ñu faire semblant quand te loolu boobaa dana au moins impliqué ñuy def au même le minimum. mais y commission bon commission boobu moom. parce que euh, commission bu dëgg-dëgg une autorité moo ko jiite de bon autorité de la ville dem nañ à plusieurs reprises plus de trois fois dem nañ gis ko en personne waxtaan ak euh, benn ba bu boobu moo nekkoon vice président ba. ensuite bi mu jëlee commission bi lui en personne dem nañ fa pour collaborer ak moom euh, yombal ko liggéey bi parce que ñun nous nous considérons comme des euh, des des soldats verts comme ni ko ni ko professeur di waxee donc euh, suñu engagement ñun dëgg dëgg dëgg dëgg bu fekkoon ne amoon na trouvé na répondant ci au niveau de la commune dëgg-dëgg ki question environnement aujourd'hui danañ ci ñoom dana leen ci soulager bu baax a baax a baax a baax te li nga xam ne ñoom mënuñu ko ñun. Euh, peut être euh, seen tolluwaay mayu leen ko ak dëkk bi ak seen gis ñun ñun engagé wuñu déterminant pour déterminément pour pour def ko mais malheureusement ñoom ñoo joué le jeu. enfin pour jeexal ñëwaat suñ dernier tour de table euh, ba tey dañuy des si Serigne Khadim Diop à part bàqiya bi ngeen reboiser mooy cimetière bi ak tamit ale bi jóge Mbàkke ñëw Touba lan mooy seen ay perspective si wàllu nu mel. voilà justement waxoon naa ko juste léegi ci perspective bi mooy suñ pas mooy fépp fuy espace. libre ci bi ci dëkk bi ñu ñu ñu rendre ko vert ak euh, des espèces florales florales ba des espar des espèces arboricoles wala euh, euh, des espèces ombrageuses n'est-ce pas loolu mooy loolu ak ah, justement mooy indi garab bi dañuy def ay garabu meññiif meññeef garabu ker ak garab yoo xam ne day décorer yooyu mooy suñu passeport lépp espace ci dëkk bi beneen affaire bi ci toppit mooy ni ma ko mooy euh, cette grande euh, mur verte bi ñu mën a ceinture verte autour de la ville mu def benn mm, garab ay garab yu wër dëkk bi surtout ci partout partie nord est bi nga xam ne foofu dana jàpp na ne dana baax lool ci dëkk bi aussi am nañ en perspective aussi euh, ci wàllu je crois posé woon nga question bi léegi ci wàllu les déchets les déchets waaw solides bon d'ailleurs sax on avait commencé on a liggéey avec euh, benn projet bi fi amoon ñu ko doon bu ñuy wax le centre d'enfouissement technique bi xam dafa war a am ci dëkk bi ñun def nañ ci waaw fale ci yoon ci yoon dara am na lu ñu ci dox ñun ba am na ah, vole boo xam ne ñun lañ ko confié confié mais malheureusement ce projet là je ne sais pas en tout cas il y un blocage euh, mais ñun du duñu am ci foofu am na ñu perspective ay gis yu bari ci wàllu màggal gi déchets yi yi nga xamante ne mi ngi sonal nit ñi ñu fexe ba euh, viabiliser c'est de les utiliser réinsérer ci au niveau de de l'économie locale yi am nañ gis yu baree bare mais problème bi problème du problème mu xalaat problème moyen donc euh, ñu ngi ñëw si si Moustapha Amar bi fàttali ñu ngi si jeexalukaay émission bi. Euh, suñu Moustapha nemmeeku bi mooy également danoo constaté ni euh, communication des na askan yu mën a percevoir seen ay message dama am benn seetlu bu ma def xam nga Touba ca kanam yàggul certainement yéen a ko njëkk installé wu waaye tey en fait daf leen raw lu baare si wàllu woowu parce que fu mu romb ñu xam ni Touba karam am na leneen leneen am na ndax kilifa yi jàpp na si pourtant yéen dem si kilifa yi di wax ak ñoom euh, tey la may blocage bi pourquoi Touba ville verte. di di projet bu noble mënul àgg si doyuwaay boobu noonu mën a jóge Touba ca kanam parce que lépp rek soo ci def si la. waaw jërëjëf sëñ Babacar euh, loolu li ko waral euh, mooy Touba ville verte bi mu ñëwee euh, structure wu en tant que daïra objectif am ak vision am daf ko xawoon a tënk rek ci ñaari aspect muy l'environnement et l'éducation Touba ca kanam nag dafa ñëw d'une autre façon te xam nga sëñ Touba mun naa ne. yëpp ay mbiram la lu ci nekk rek mooy xool waxtu wa gën rek mu ibbi ko Touba ci kanam dafa ñëw rek doon loo xam ne lu général la nga xam dafa ñëw enveloppé toutes les activités économiques de la ville de Touba ba tax mu tudd Touba ci kanam donc communication bi moom xam naa ne war nañ ci mën a gën a liggéeyaat te incha allah loolu ensemble dañ ànd ñu ñëpp liggéey ci mais su cette occasion ñu ñu ngi lancé wala appel Touba ca kanam mu xam ne moom dafa doon kuréel goo xam ne dafa ñëw enveloppé kuréel yu nekk ci biir dëkk yëpp nga xam mun naa ne euh, dafa fédéré toutes les daayira mouridisme pour benn objectif mooy le développement de la ville de Touba kon ma ko Serigne Touba ñaanee woon ci Matlabul Fawzeyni kenn ku ci nekk nag na mu war a liggéey mu yow mu fekk la ci domaine ba nga nekk mu appuyer la la nga manqué mu dolli la ko parce que Touba ca kanam mooy Touba vivante ñun nag suñu volet mooy environnement ak éducation kon Touba ca kanam à ma voix Euh, ak ci turu kuréel gi di daayira Nuuru Daarayni yi ñu ngi leen di lancer appel ci ñëw ànd ak ñun ci environnement tubaab bi ni ñuy ànd ensemble ba développé ko ci wàllu reboisement ceinture verte bi war nañ créer une pépinière recyclage ak euh, tout ça luy jàppale environnement mu jëm ci kanam. pour revenir Serigne naa mooy laaj bu mujj bi rek. Euh, comme que yaay financier bi le budget bi nga xamante ni moo leen mën a permettre ngeen mën a réussir seen ay activités. doon lu ndaw de ñan ngeen yaakaar ni ñooñu ñoo leen si war a mën a jàppale ak fa ngeen ci tollu jamono ji. waaw sëñ Babacar loolu dinaa sawar ci laaj ko te ci tontu ko ndaxte da di lu am solo waaye pour nga estimer ko dina doon lu xaw a jafe. mais nag euh, sëñ Tuubaa moom dara daraam du des ginnaaw. waaw lépp luñ bëgg rek buñ ko nësëree parce que dama lay jox ay exemple ndaw rek par exemple biogène bii nga xam ne daan nañ ko def ci euh, grande mosquée bi. des fois bu ñu dara ñu coûté ay huit cent mille. mais ñun ñoo ko doon jaayante parce que biogène bi ñu ko daan jëndee fële je pense Sébikotane mais ñoo ko doon jaayante par exemple bu ñu euh, euh, je pense le le sac de cinquante kilos coûté sept mille cinq cent ñu ci daan jënd ay tonnes. maa jël vingt sacs kii naan maa jël trente ba ba mat donc ñun noonu la ñu doxee fii nag bu ñu amoon un projet de cent mille de de un million wala de deux millions tamit noonu lañ ko dañ koy partager suñu biir. mais comme que tubaa dafa yaatu ak ni ko sëñ Xaadim Jóob waxee bande verte boobu nga xam ne war nañ ko fi def sa ça demande beaucoup de moyens donc loolu tax tamit ñu te euh, tubaa ci kanam lépp benn la liggéey sëñ Touba moo leen tax a jóg ñu liggéey sëñ Touba moo ñu tax a donc loolu tax ñu fi ne nii ñi ngi euh, waxtaan ak ñoom noo xam ni euh, danañ ci jàpp ñeneen jàpp ci parce que dama lay fàttali ni am nañ Touba vert diaspora am nañ ko ñoo xam ne ñi ngi bitim réew ñooñu itam dañ ciy contribuer ci ci ci ci ci ci nu nu nu band bi mën a euh, jëmee ci kanam donc daal incha allah daal xam naa ni pour estimer la dina jafe mais xam naa lépp loo xam ni projet la boo xam ne bu taxaw la pare nañ pour pour pour pour mu sotti daata sañ Tuubaa moom léppam kanam la jëm. dara mu jëmul ginnaaw. voilà mbokki diweel émission bi euh, ba tey da nga ñëw sëñ Moustapha Diop euh, wala sëñ Mourtala sëñ Mourtala sëñ Mourtala Gaye sëñ Mourtala Gaye Euh, dañuy ñëw si yow parce que dañoo nemmeeku ni dëkk bi moom ñëpp xam nañu ni jaayante mooy doxal lépp parce que tu beneen du ma sox tudd Touba ca kanam damay tudd rek daayira yi loo laaj nit ñi balay jant ñu indi la ko rawat nag gox bi nga xamante ni mën nañu wax nii daanaka ñëpp ay baykat la ñu ndax euh, ku fi nekk am ngay tool wala bokk sa mbokk am na ko tey boo ngeen waxoon nii nit ku nekk bu jëmatee benn garab est-ce que jàppale ni du yoon wi gën a gaaw pour mën a ngeen réussir seen objectif comme ni ngeen ko waxee la grande muraille verte ak yeneen ak yeneen yooyu jàppale ni loolu du ko matal sensibilisation bi communication mu gën a yemb. Euh, jërëjëf euh, sëñ Babacar euh, ngir sensibiliser nit ñi ba kenn ku ci nekk kenn ku ci nekk mën a jëmbat garab loolu ñun am nañ ci ay jéego yoo xam ni ñu ngi ko ciy dox bëgguñu sax ñun. ñu ñu loolu ñu wax ko waaye kàddu gi dañoo bëgg mu jógee ci xalif général te loolu tamit ñu ciy liggéey ak sëñ Abdou Samad am na lu mu ñu ci permettre ton euh, loo xam ni xëy na bu yàlla dogalee mu sotti ba danañ fexe ba sëriñ bi ci boppam joxe ndigal ci taalibe bu ne mu jëmbat benn garab waaye nag dañu bëggoon loolu fekk ñun ñu liggéey ba mën a am garab yu bari yoo xam ni bu ko nit ñi soxlaa ñu jox leen ko kenn ku ne mën a jëmbat garab ci sa bundu kër ni tuubaa nekkee dëkk boo xam ni garab lañ ko tuddee kon jaadu na nit ñi fonk garab loolu nag mi ngi avancé ndànk-ndànk njëkkoon Euh, jafe jafe-jafe yi fi ne léeg rek ñu bari sax dañ lay woo di la ñaan garab may ma garab ci naa am na ay garab yu ñu fi ñu fi amoon ay benn benn garab yu ñu doon may may nit ñi mais nit ñi dañ dañuy wane ni bëgg nañ garab kon loolu mi ngi dox ndànk-ndànk mais nag euh, fexe ba am cent pour cent wala 80 pour cent 99 pour cent loolu faw ñu ñu fexe ba kàddu kilifa ki dugg ci te loolu incha allah ñu ci liggéey waaw. waa Eaux et Forêts ñoom itam euh, surtout bi nekk Mbacke suñu partenaire la te dañuy jàppale bu baax a ñoom ci seen bopp. dañu am garab yoo xam ne ñoom ñoo koy euh, euh, gérer waaye dañ ñuy woo collaborer ak ñun ñu ñu dem euh, def ak ñoom benn journée seetaat garab ya nu ñu koy gën a yeesalaate kon ñoom tam ñu leen sant bu baax a baax ba fi ne nii bu ñu leen woowoon suba suba ci terrain bi ñoom dana ñëw ànd ak ñun ci terrain bi tey wax wax war nañ seen matériel tamit am na ci yoo xam ni euh, yombal nañ ko ngir ñun bu ñu ko bëggee jëfandikoo ñu mën koo jëfandikoo. mbokk yi kon ñu ngi am mbégte àndoon ak yéen si émission bii di euh, xibaar entretien di plateau yu ñuy jagleel mbooleem acteurs yi tey nag waa tubaab Ville Verte di daayira Nour Daarayni ñoo nekkoon suñuy invité ñu ñëw si lu yaatu seen politique environnementale si dëkk bu tedd bi noonu lañ koy wéyale rek a yeneen secteurs yi jox leen daje ba beneen plateau incha jarajëf jërëjëf.